Babacar Fall président association des handicapés mixtes de Mbacké. waaw tey waaw li initiative bi lu rafet la parce que mënoon na ko def rek yemale ko ci association. parce que man mii di toog président association la kii toog fi président association mais transparence bu ci nekk donte ñoo bokk benn fédération yaa ngi dégg mun moom mu nekk vice président en même temps mais munoon mbirum munoon na ko def mbirum association loolu tamit moom lu lu lu la xam nga kon donc loolu moom dama ko ciy bu baax a baax ndax euh, li mu distribué fii xajoon na ci association mu jeex tak xam nga mais ku ci nekk association bu nekk am na membre yu fa jóge sa président ba ñëw mu jàppale ay suñu doom yi quoi. waa autorités autorité yi moom autorité bu dee li ñuy wax autorité mooy autorité kon autorité amu fi parce que di ma jàpp nit ñi Sénégal di wax autorité mooy monsieur le préfet te gisuma ko fi dégguma fi ndawam yëg yow dégg nga ko fi yow da ngay wax waaw wala déet mbaa ma jóg dégg nga fi ñu ne mu le préfet ndawam ah non da ngeen di bu ngeen di wax da ngeen di ñeme man du ma wax ak tàppet dégg ngeen fi monsieur le ndawam est-ce que dégg ngeen monsieur le maire moo fi yónnee lii yaa ngi dégg kon ñoom dañoo xeeb handicapé bi capé yi ñoom dañ ñoo xeeb quoi xam la ko wax parce que en tant que maire préfet sax xëy dañ ko fi affecté mais en tant que maire élu di ñoo xam ñun ñoo ko élire yaa ngi dégg bon moom mu attan ñun ñu nekk fii di di organiser lu mel nii monsieur le maire toog fii yaa ngi dégg di gis ñu dëkk fii Mbàkke xam la ko baax attanu la yëkkati sax benn 5000 francs yónnee ko wala mu yónnee benn ndaw boo xam day ñëw sax wax ci kàddoom bu joxewul dara sax ñu suturaal ko mais ñun maire maire star la ñu am li ma wax ni ko teg télé bi de na nga ko teg ko ci rajo bi ñun amuñu maire stare la ñu am xam nga ab star mooy kan mooy ki nga xam day jafe gis soo ko woowee du la jot doo ko jot ay da ngay nekk ba 3 heures du matin 4 heures mu jóg ànd ak ay gaañanam toog ci buntu këram di naan caañ yaa ngi dégg bu ko defee ay ñu ko encadré toog naan ñun nag monsieur le ñoo toog moom ci buntu këram ay 3 heures du matin 4 heures moom star la mais mais pourquoi mënta mu nekk handicapé moom te man mii moom leer na ma ni man du yàgg yàgg ba ma nekkaat valide mais mun naa waat yàlla ni man du yàgg ba ma nekkaat valide mais moom bu tegaloo kaami fi bu ñu ko dóoree ni moom du ma sa nekk handicapé du ko ñeme kon donc affaire bi mi ngi ci kanam laa wax moom monsieur le maire kese laay waaye yow dem nañ fa waaye euh, laajal ma euh, question boobu dama lay bàyyi ak Matar Dieng nga wax ko nee ko Babacar Fall nee na lii bu ma ko posé question bi lii man loolu question boobu dama koy bàyyi ak Matar Dieng doon coordonné yaa ma la kooku ko bàyyi ak mais wax am na lu ma wax bañ dajee action sociale mais loolu du ma ko ko jàllaleel moom na ko jàllale na ñeme nag na ñeme quoi parce que gars yi ñoom ay star lañ teg seen doom ñoom teg ñun ay handicapé ay golo bu ñu gisee handicapé buy raam ñu jàppee ko golo bu ñu gisee handicapé buy buy buy kërëj buy kalaj kalaj ñu am nuñ ko considéré boo leen falee ñu romb laak oto yi ñuul kuk di dem seen yoon tekki ñu dara parce que hmm? non non man bi ma man a wax bi ma mën a wax mooy bi ñëpp gis xam nga man du ma wax loo xamante ni yow peut-être yow yow yaa ma posé question li nga fekk laa lay wax yow comprendre nga wax ju waaw aide aide aide aide sax bi mu ñu ko joxee daf daf ñu doon signaloo aide Korité bi ñu doon joxe 15000 francs sagaru 15000 francs bi ñu doon jox Korité daf ñu doon signaloo signaloo man damaa lànk ni ko si ni leen signé li ma lay wax na nga ko jàllale damaa lànk ni leen man signé wu ma yaa ngi dégg parce que maire bi fi nekkoon mosuñoo signaloo te daaw ay 25000 la ñu daan jox moom mu ñu jox 15000 francs maire daal li ñu ko tegee ne la moom ab star la star ko gën a yomb ak Akon ñoo gën a yomb moom bien sûr parce que mooy suñu yaay boo gisee ma am fit wax ko adressé ko parole directement mais mooy suñu yaay mais yaay ji xeeb na handicapé bi yaay ji xeeb na handicapé bi adjoint au maire nag def na effort yaa ngi dégg mais monsieur le maire mooy suñu tante tante maanaam yaay ji sànni na doom ji parce que da koo xeeb ndax handicapé la mais tante ji jël na ko tam tamal ko taf ko ci moom won ko ni sama askan ga muy lan yaay ji mooy monsieur le maire moo jur xeeb na askanu xeeb na handicapé yi sànni na leen yaa ngi dégg ni leen yéen da ngeen a laago da ngeen a kii tekkiwu leen dara da ngeen may rusloo su ma toogee samay morom bu ngeen fa ñëwee damay rus topp leen ne tante ji nag mooy rakk ja maanaam ni ma la ko waxee ci ci dégg-dégg adjoint au maire Morane Gueye daal ni ah askan la ndax sama doom sama mago ko jur xaaj ko taf ko ci noonu laa ko mën noonu laa leen mën a waxee affaire bu ñu dégg te xamul li ñuy wax ñu xam carrément li ñuy wax suñu ndey moom sànni nañu mooy galo ba sànni nañu man Babacar Fall maa ko wax je l'assume suñu kër yi man ak moom matul matul 100 mètres sama kër ak këram matul 100 mètres merci beaucoup